lakk bi amoon ci marché central bu Fatick maire bu bokk moomeel gi xëy na def fa ak doxuk saytu ngir mastawu yi la jaaykat tey dañu ñëwoon di xool si ndog bi nga xam ne am na ci marché central bi nga xamante ne xew na ba sapeur jóg ci préfet jóg ci mairie bi jóg ci waa Fatick yëpp jóg ci ñëw taxawu ñi lakkale ba dalal leen ba defal leen ba métit gi wàññeeku ci ñoom parce que ñëpp xam nañ ne liggéey sa alal ba mu toll nii di xool muy lakk ba jeex neexul seen kaw wone nañ ñi ngëm yàlla bu ci bile ndaje assis national daal di fay teew yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi ak ñi ngànk bokk moomeel gi ngir ñu gën a jooyanti melokaanu marché yi ak nekkinu jaaykat yi. tey képp ku dugg ci marché bi visité ko rek war ngaa xam ne marché warul mel nii kon war nañ mën a jéem a moderniser marché yi ndax ku ne xam na ni marché dafa soxla police boo xam ne mooy jubanti nit leen teg ci yoon. loolu waral kuréel liñ mën ñuy dajale lu ci mel ni assise ànd ak délégué bi ñu ne ah ñun kat maire dañoo bëgg ñu defaral képp koo xam ne am nga cantine ñoo ne la sa cantine fii nga yem bépp doxandeem bu jógee feneen ñëw bëgg a occuper mbedd mi ñu xamante la ah lii kat amoo ci droit loolu nag commerçant moo koy def waaye autorité bi moom moo jël responsabilité boobu jàpp nañu loolu bu amee ànd ak modernisation marché yi nga xam ne état lancé na ko mu promotion moom mu jàppale maire yi aussi ci projet boobu mu doon loo xam ne du diire jiyee ji metti lool waaral bokk moomeel bu Fatick fas yéene yëkkati ndàmpaay lu toll ci fukki million jagleel ko ñu loru ci bile lakk mairie bi bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom moo tax ñu jël fukki million war koo jox ñi nga xamante ne ñooy fukki nit ñi ak ñeent ñi nga xamante ne ñoom la seen i cantine wala seen i table lakk ba jeex loolu nag ndimbal la bu jógee ci mairie bi. jëm ci askan wi te xam ne li ñu def ci ñoom it xaalisu askan wi la. maire bu commune bu Fatick di xam xamle ne ñu ngi ci tànki tabaxaat marché bu bees waaye balaa boobee daan def seen kéem kàttan ngir gën a ñoŋal. marché central bu Fatick.